ak jàngale alxuraanul karim lu ñu saxal la ci dëkk bu sell bi di Touba. ndongo yi nga xam ne ñoo nekke ci yenn daaray alxuraanul karim yi yenn saa yi ñuy am ay jafe-jafe lool ci wàllum lekk wàllum cet ak yëre yoo xam ne moom la ñuy sol loolee nag sëriñu daara yi am nañ ci yéene lool waaye seenu doole da koo matewul ngir taxaw daara yi génn leen ci mboolem jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy jànkoonteel saa su ne moo tax ñu sos kuréel gi nga xam ne moom moo di ëhlu xidma ndayu daara yi ci atum 2008 ñu sos ko ci dëkkub Cheikh Ahmadou Bamba bi nga xam ni ku fonkoon alquraanul karim la di wax ne yaa axrina yaa rabbana bil xidma lil muslimina abadan wa rahma sama borom maa ngi lay ñaan nga nu ci liggéeyal jullit ñi liggéey boo xam ne nag bu liggéey tey bàyyi ëllëg day sax ba faaw te liggéey boo xam ne day ànd ak yërmaane kon loolu mu fàttali ko wax ne moom bi xidmatul quraan wal xadiis yasbut laa bi sahabin mawroos ci liggéeyal alquran ak xadis yoonu salaay ci lay sax ba faw amul lan lu fi bàyyi lu ñu koy doon ne lu dut ñàng jàngale kon loolu moo xiirtal taalibe yu topp ci moom itam ñu xam ne sëriñ bi kat léppam alquran la ku mës a bind alquran wala nga jàng ko bu ñëwee mu teg la ca kaw digal seex yi ñu ñu ñu taxaw di liggéey di taral ñooñ alquran loolu nag yaakaar naa comme ni mu ko waxee ne man la kan al ya tamlikan yadum bi ànd na xillun wa xibbun wa xadim yàlla moom la noom alquran ci moom gu sax alal sëñ tubaa nag taalib sëñ tubaa ko war a sàmm kon loolu moo tax taalibi sëñ tubaa yi booloo nekk ci ak kuréel gu ñuy wax ahlul xidmati muy ñi nga xam ne dañoo jóg ngir liggéeyal yàlla ci jullit ñi te jaare ko ci alquran ndax xamim la sëñ tubaa waxoon ne ëllëg de bu yamal xiyaamee ba ñu rësal jant bi ba tar-tar yi metti kenn ku ne nekk ci jaaxle dana am aji woote ju woote ci kaw ne ay na ahlu xidmati ana ñu daan liggéeyal jullit ni nu ne ko noo ngi nii munu daw leen dugg aljanna ci lu gaaw ci lu ëntug benn coono ah, kon nag loolee yaakaar naa ne la koy tax a am fii lañ koy liggéeyee ci àddina kuréel gi ñu ngi ko sosoon ci 2018 boobaag léegi daanaka ay yu néew la waaye samp na ay bànqaasam daanaka fépp ci dëkk bi te fas yéene ba ci réew taxawal xidmat rek mooy ñi ñi liggéeyal jullit ñi ñi xam ne dañuy liggéeyal jullit ñi te yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na woon xayrul qawmi xaadimuhum ki gën ci nit ñi ki leen di liggéeyal nit ñi rek la wax kon kii liggéeyal jullit ñi nag moom ana moom ngëneelam fu mu toll waaw ki nga xam ne nag dafa dem te biir jullit mu tànn ña ca gën xayrukum man ta'allama wa 'allama kooku kon liggéeyam mu toll kon ngëneelam ci nit ñi mu ne su ko xayma bëgg-bëgg kuréel gi nga xam ne moo di ahlu xidma ndayu daara yi mooy jële tumuranke ci mboolem daara yi alxuraanul karim yi ndax suñu mbokki soxna yi ay ndayu daara ànd ak suñu mbokki sëriñ daara yi ànd ak baayu daara yi jëlee tumuranke ci daara yi jàppale tu tànk yi ba ñu nekk ci ay conditions yu baax di dund dund bu baax ne am wér-gu-yaram set dañuy wax ne xel mu mucc mu ngi mënut am ci lu dul ci yaram moo mucc kon loolu moo tax kuréel gii di ahlu xidmat yi jàppoo ngir jàppale daara yi jóg taxaw fas yéene dox diggante tumuranke ak daara yi. ndongoy daara yi ku ne xam na ne yittewoon nañu ak cet moo tax ndeyu daara yi nga xam ne ñoo nekk ci kuréel gii di ahlu xidma saa su ne ñuy organiser wu noo xam ni dañuy fóotal ndongo yi seen yére yi ba mu set bu dee ci wàllu dund ndongo yi jëm ci yelwaan gi nga xam ne moom lañ daan def ñu soppi ko indi ci yeneeni pexe. ñu fàggu ay bool yu bari yoo xam ni dañ koy séddale ay ndeyu daara ngir saa yuñ toggee mën a tibbal daara ji ndongo yi ñëw jël si ci loo xam ni du am benn coono. benn bi mooy fexe ba ñu set soxna yi jóg taxaw fas yéene di fóotal ndongo yi di fóotal ndongo yi te duñu laaj kenn dara ñoom ñooy wut seen saabu wut seen ordinateur wut seen i paan seen lépp ngir liggéeyal ci yàlla loolu du liggéey bu am solo waaye yemuñ ci loolu. fas yéene dong yi duñu xiif ba li leen di coowee ci yalwaan mi ci dëkk beeg ci réew mi loolu ñoom ñu jëlee ko fi waaye nag ñu def ko ci anam gu gën a mucc mooy bu njëkk dañ daan ab dong dara yore potam wër di yalwaan ñu koy sarax ay des ak yëf waaye ñoom ñu ne dañoo bëgg day ginnaaw ñoom li ñuy def yàlla tax ñu koy def te yàlla ku koy jox da nga jox la gën a sell ndax yàlla moo ne yéen sallallahu alayhi wasallam moo yàlla ku sell la inna allaha tayyibun laa yaqbalu illa tayyiba yàlla ku sell te du nangu lu dul lu sell te sarax bi yéen salaa sam nee boo ko jëyi di ko jox ki nga koy jox balaa tege ci loxol ki nga koy jox ci loxol yàlla lañ njëkk a ba noppi ñu ne kon nag boo jox yàlla loo xam ne bu ëllëgee da la koy dencal fulal la ko jox ko lu baax ndax bu la ko fulalee bu ëllëgee boo demee fekk fa muy sa ñoom ñu ne kon dañuy wut bool yu bees taq wër kër yi yëpp kër gu nekk bu dee nag daara ñu jox la bool nga la del tibbal daara ñi bi loolu ameet wax naa leen ndab li am na ay mbañ ay mbañ mbañ yooyu at ba ma leen ko waxee ñu ànd ci ak man te di ko doxalit bu baaxit nag ndax dama leen ni ndab li moom su ci def aw des e, kenn ku ne la nga xam ni bu sa doom génnan kër gi ba añ jot néew fii nanga koy tibbale jàppal ni ki ngay tibbal sa doom la na ngay tibbaatee rek nga tibbali ko noona te bañ caa def aw des bañ caa def loo xamante ni boo gisuloon koo ko jox da nga koy tuuri bi ma ko waxee ñoom noonu it wax dëgg yàlla ñu rafetlu ko dox ci ànd ceeg man doxin wu rafet nga xam ni ndongo yi bénéfice nañ ci ci seen waxtu ndax buñ musaa wàcc ñu ngay daal di raxas seeni ndab di déglu man leen màjjaal jot nañu dem diggante bi ñuy dem ak bi ñuy dellu si eh, sëriñ daara bi ci boppam sax day bénéfice foofu ndax xam nga ak njaboot lu toll ci ab lim ñu génn ci waxtu wi fii ak dellu ñoom ñëpp ba toog ci sa kanam sa xel du dal bi lii amee nag yàlla dogal gis nga ni mu demee léegi suñ wàccee ba julli tisbaar ba noppi ñu dem ci seen teeg bakkan kenn ku ne ma yebal la kër gaa nga war a dem nga dem fekk ñu tibb bool ba tabarak la defar ko defar boo xam ni mën nga koo jox ku ne. sa jëf ji nga jëf ma ngi xool famille bi fépp. yow bu dongo daara bi xewloo xéwal gu muy xéwloo sa jëf tàbbi na ca bu naanee ndox sa jëf tàbbi na ca ndax bu fekkee wax nañ ni dañuy yóbbu ay paan ay sooy naanukaay ay pot yu ñuy bu solee yére sa jëf na ca ndax bu tilimee da ñu fóot ko delloo si waatal ko mu sol daanaka day mujj dañuy dañuy dañuy seen loxo day daj day day day daj daara yëpp lu waa daara jéngut rek loxol ahlul xidmata a nga ca loolu nag bu fekkente ne maanaam ku not da nga notti ah yaakaar na loolu bu ñu ko nottee bu la nee fay gi dana doon àjjana boo mutul sax boo ca farloo lool da nga mën a yóbbaale sax ñeneen euh, seen liggéey daal wax dëgg yàlla ñun nekk gën ca nekk ak gis gis gën ci gis suñu bopp tax na daanaka duñ mat ñoom seede ndax euh, am na solo am solo goo xam ne buñ toogoon fii di wax li nga xam ne mooy seen njariñ ci daara mën nañ fa yàgg lool te duñ ko xaajale ba ba ba koy ba koy matale. xidma am na ay soxna yu ci nekk ñu naan leen ay ndeyu daara saa su ne ñu ne di taxawu ndongo yi ci lépp loo xam ni moo jëm ci seenug dund ak seenug nekkin lépp mën a ñoŋ liggéey bu ni mel nag ñu ngi ciy soññ mbooleem soxna yi nga xam ni bëgg nañu ànd ak ñoom liggéey bu am solo bii. mbootaayu ndeyu daara yi ak baayu daara yi di leen soññ bu baax a baax a baax ci liggéey bi liggéey. di liggéeyub lislaam mooy jàppale daara yi ak ndongo yi ànd koog bàyyi daara yi ñu ngi leen ci woo bu baax di leen ci soññi ci jàppale daara ba nga xam ne ni daara du tumuraanke mu toppatoo leen ba nga xam ne ni dinañ mën a set di leen fóotal ak di leen joxe saabu ak di leen tibbal ba duñu xiif ba duñu yalwaani nga xam ne nii ñi nga xam ne nii dañ contre daara mooy waa Occident yi duñ duñ duñ mën a duñu mën a am awlay ci daara yi loolu ñun jullit yi ñoo ko mën a def ndax kat cin moom lum xat-xat bokk xorom lu waaye xat-xat war a mën a jàppale daara te xam ne boo ko defee doo ko réccu liggéey bi nga xam ne moom la ëxlu xidma ndeyu daal yi di def nekk na liggéey boo xam ni waajuru ndongo yi sant nañu leen bu baax a baax ndax lii ñoom la waroon ëxlu xidma wëlbatiku di leen ko defal moo tax ñu soññ mbooleem waajuru ndongo yi ñu ñëw tàbbi ci liggéey bi ci liggéey bi nga xam ni dañ koy liggéey jëme ko ci daara muy bool yi ñuy tibbeele dongo yi yooyu maanaam ñu ngi ci woo képp ku ci mën a dugal sa loxo loo ci mën a dugal rek baax na ndey daara yi ak bàyyi daara yi ñoom ñëpp ñu ngi leen di woo ndax ñoom ñooy dalil yi ndax ñoo jiite lépp. xale bi ci daara ji jàng alxuraan dañ ko war a jàppale waaye sa doom ji nga jur rek lekk mag naan ak tëdduwaayam doy la sëkk nga bàyyi xale bi nga xam ne gisul ndeyam gisul baayam xamoo ko nga bàyyi ko seetaan ko. loolu rafetut kon war nañoo fonkaat xale yi ci daara ji bu baax a baax di leen tibbal di leen fi ngay tibbal sa sëriñ bi nga yaakaar sa borom kër ak di di fa tibbal sa doom ji nga jur nga fa tibbal xale bi nga xam ne mooy donga daara bi ci daara ji kon ñu fonk donga daara yi nga xam ne ñu ngi ci daara ji di leen jàppale di leen fóotal di leen baleel di leen toppatoo waaye sa doom sol set sangu ba set di lekk ba suur xale bi nga xam ne yow mi ci mbedd mi xamoo ko liggéeyloo ci yàlla yaa ngi nax sa bopp. ñu ngi sàkku ci suñu moroomi jigéen yépp kenn ku ci nekk soo ko manee la ngay ñaag di ko saraxe taal bi nga tibb ko ci bool dem yóbbu ko ca daara ja taalibe yi fa nekk ñaar mën na noo sukk ñett mën na noo sukk bu yàggee yelwaan bi dana wàññeeku. wuti suñuy saabu ak sunuy omo seet daara jan dendal ca koñ ba. ñu dem ca sëriñu daara ba mu dajale sëri dongo yi jox nu ñu fóot ko ba mu set buñ paree lem wuti sunuy saabu ak sunuy omo seet daara jan dendal ca koñ ba ñu dem ca sëriñu daara ba mu dajale sëri dongo yi jox nu ñu fóot ko ba mu set paree lem ko dem delloo ji ko ca daara ja loolu bu nu ko jàppoo koñ bu ne jàppoo ko yaakaar naa ne tilim ji dana wàññeeku ci daara yi xiif biir dana wàññeeku daara yelwaan bi dana wàññeeku. ba defee nag yow parent boobu nag sa doom léegi dafa mel ni yow fay wa dara ba noppi sa doom nekk ci internat sa doom nekk ci internat kon yaakaar naa ne parents yi ci boppam muy parents yu jigéen yi ak parents yu góor yi yaakaar naa ni ñoom euh, war nañoo gën a sant yàlla donte nag ñëpp ñëpp war a sant yàlla. jamono ji nga xam ne jàngoroy coronavirus sonaloon na lool dëkk bi ahlu xidma jógoon na jàppale mboolem daara yi nga xam ni ñoo nekkee ci dëkk bu sell bi di Touba ci ak dund ak mboolem jumtukaay yoo xam ne dañu ko yittewoo ngir xeex jàngoro ji nga xam ne sonaloon na lool réew mi. lii ku ko gis xam ne ahlul xidma jëm ci daara ñor na leen lool ndax bi feebar bii di laata am fekk na boobu yéen yéen a ngi fas yéene daara yi set ndax ay weeri weer a ngi nii yoo xam ne li ngeen doon def mooy fexe ba daara ju boo dikkee ca daara ja ab batt sax doo ko mën a for ci daara ji fexe ba dong yi koo ci gis bu la rombee ci mbedd mi doo jàpp ni kii dong ab daara la ndax dong ab daara ko xamee woon mooy bu génnee sagadee muy solo ak yu tilim ya waaye loolu ñaan ngeen yàlla génne ko ci dëkk bi te it yéen a ngi taxaw ci loolu te loolu daanaka dañ la ci dëkk bi nag man de daara jëma nekk nga xam ne yée ngeen leen taxaw ngeen leen ci loolu soxna Ndogoy koy a ngi nii toog waaye dong yi de ku ci génn ci bitti di dox di dem ñimewu koo dab naan kee ab donga la ndax lu set wicc lay sol lu neex itam la ñuy lekk te lépp seen yeete bii la kon yàlla na leen yàlla taxaw te sàmm leen bu baax a baax a baax lii ko gis xam ne wax dëgg yàlla yéen a ngi taxaw daara nag. ci jamono yi nga xam ne mbas mi sonaloon na lool réew mi am na daara yu bëree bëri yoo xam ne ñu ngi ci dëkk bu sell bi di Touba yëguñu woon méttituwaay jamono jooju ndax taxawu goo xam ni kuréel gii di ahlu xidma ñu ngi leen ko doon taxawu di leen indil lu ñuy xéwloo ci jamonoy couvre-feu bi nga xam ni ndongo yi mënuñu woon génn di yalwaan yi Ahlu Xidma daan togg daan ko séddale ci mboolem daara yi di liggéey boo xam ni liñ ci def ci ay koppaax takku na lool mboolem dongo yi nga xam ne ñoo nekk ci daaray alxuraanul karim yi sant nañ bu baax baax kuréel gi nga xam ni moo di ahlu xidma ci ni nga xam ne noonu lañ leen di toppatoo. ngir jàppale ngir jëmm jëmmi daara ji ñu wax ndax moom ahlu xidma amuñu seen fay ñoo ñu jàppale yëg nañ suñu bopp bu baax ñun waa daara ji ak moo yeneen daara yi. ñoo xam ñoo ñoo ñu liggéeyal bu baax di ñu si ni yére yi yi ñu jox ay paan raxasu ak i bool yi ñu amut ak i yére yi di ñu si suñu yére yi li ñu amut tamit ñoo ñu koy liggéeyante jox ñu ko si daara gi ak koor gi tamit ñoo ñu defaral ay ndogu ndogu yu baax <coughs> ak ak wane yi tamit ñoo ñu koy raxasal bam set di ñu jox ay yére. ku amul njëriñ ñu dimbali la jox la ay yére ak paan yeeg yëpp lu aajo si daara ji ñooñu ko lijjanti ñoo leen sant bu baax si barke Sëriñ Tuubaa gis nañ bu baax li ngeen ñuy defal si wàllum fóot beeg togg beeg lépp gis nañ ko maa ngi wax nag si turu ndongo yëpp ñu ngi leen sant bu baax a baax a baax di leen gërëm di ñaan suñu borom yàggal leen fi wéral leen may leen kàttan bu baax a baax a baax. di wax tamit suñu sëriñ daara yi nga xam si ñoo ñu taxaw jàngal ñu alxuraan ba ñu mokkal ñoom it ñu ngi leen sant bu baax a baax di leen gërëm tamit ñu toppatoo ñu ba ñuy jàng xam-xam si ni mu waree. di liggéey bu am solo boo xam ne sëriñ daara yi bëgg nañ ci kontaan nañ ci xam nañ ne kuréel gi yéex naa taxaw. liggéeyal yàlla dëgg a ngi nii muy liggéey bi nga xam ni moom la kuréel ahlu xidma di def ci daaray alxuraanul karim yi di taxawu mboolem ndongo yi ci seenug nekkin seenug dund ak lépp lu ci aajowu di liggéey boo xam ni nag dañu ko yaatal ci képp koo xam ni bëgg naa ñëw ànd ak ñoom liggéey bu am solo bi nga xam ni liggéey gënu koo féete kaw ñëw leen ànd ak ahlul xidma ndeyu daara yi bokk ci ñi nga xam ni ñooy saafara mboolem jafe-jafe yi nga xam ni daara mu ngi koy jànkoonteel